asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu e, mbooloo mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ki leen di nuyu e, mi ngi tudd El Hadj Talla Diagne e, mooy maire commune di canaba waaw sëñ Baye nag xam naa moom dañ ciy laal tuuti rek waaye dañu wax ni Seydina Mohamed képp ku jóge senegaal wala nga jóge ci beneen réew dagg paas pour siyaari ko àgg màkkatal mu karama delsiwaat ci senegaal wala beneen réew di bëgg a nettali di nga juum day bërëb boo xam ni kenn mënu koo nettali kenn xanaa dem ba àgg fa rek waaye li nu mën a wax daal mooy gouvernement Sénégal xawma gan aj wala man at waaye ren li leen war lépp def nañ ko eh, yàllaa ngi dogalit gouvernement bi nga xam moo nekk màkkatal mu karama def nañ lu mësta def ndax man du tey laa masa aji euh, demal na 2009 waaye tey bi ma delluwaatee la ma fa gis woote na ak la ma gisan 2009 waaw li ma fa gën a marqué mooy bu dee ci wàllu taxawaay mooy sécurité ba sécurité ba doy na doy goo xam ne nii da ngay xalaat ojaaj yi ak sécurité bi kan moo ëpp muy lu am solo parce que nanguwunu juróomi nit wala juróom-benn nit taxaw foo taxaw ñu fekk la fa tasaate la parce que loolu nag boo gisee dafa am lu leen bettan daaw loolu nag lan parawaar ba ren loolu amu fa kenn ku ne xam na ni jamra suñ ko daa sànni day am buux buuxloo ren amul ci kaw ak ci suuf ñoo bokk yam saa boo demee di sànni jamra da ngay dem ba timpax mi sànni lu la neex doo buuxante kenn du gaañ sa morom muy lu am solo. yow xam nga bisu élection bi eh, yàlla baax na sax parce que am na kenn ci ñun eh, koo xam ni maa ngi doon jokkoog moom muy Thierno Ndiaye. mi ngi nii toog eh, nekk collectif maire bu département Thiès Thierno Ndiaye mooy second secrétaire mais yàlla xam na moom mi ngi nii bi ma wax ak moom ñaari baat ci laa noppee mën a wax ak moom ngir xol bu sedd yëg taxawaay boo xam département kees taxaw na ko ci sama ginnaaw eh, avant booba am na ñoo xam dama leen a bàyyi rek sama kàddu bi nuy def tournée jëkke ci sama commune bi nu dikkee jàpp nañ ne lépp rek wu waaye bi nu fi déparé dem ci yeneen communes yi fekk nañ fa ay jafe-jafe parce que am na ci commune yoo xam ban fa demee bi nu wootee bi maire bi wootee cinq maire presque moo teew xañ na dafa am jënoo amul jot wala qu'est-ce man ci lan ma woo nag expliqué ma fekk dugalal naa ci sama portable quatre-vingt mille pour crédit parce que parawaar naa ko ci laa téléphoné waat code fal mu ma cinquante mille muy cent trente mille francs dama ko téléphoné ci bis ba mu jeex di jokkoo ak conseil municipal yooyu xaj na ne yaakaar na ni problème am na te li may wax nii seere la parce que am na ko ci bokk koo xam mi ngi toog mais ñu mobiliser avant une heure ñoom ñëpp waxtaan nañu ba d'accord ba ñoom ñëpp ñu fësal yéene pour ànd ak man te moo ne en tout cas seen dëkk am na candidat mais danoo bàyyi candidat boobu dikk ànd ak man mais yëg-yëg boobu nag nga xam ne moom la département Kees taxawee ak responsable politique yi seen dugg ak seen génn ci laa dem ba sama xol jeex ba dama jooy parce que su ma teewan ma daal di jàpp ni xañ na li ma jëflante ak nit ñi moom la ma nit ñi rusa ba def leen bëgg a def mais bu mbir xewee nga bokk ci ab lis nga woote ko mais maire Fallou Fall dafa jikki baay gi mu woo ma mun ma neexul ba neexul mais liste bi ni mu jàlle yaa tax ñëpp nag jàmbaar lañu parce que ñi ma ko bokkal ñëpp am nanu mbooloo am nañu yëg-yëg ci nit ñi waaye dafa am loo xam ne nii soo waree nit ñi ginnaaw tàggu leen ni maa ngi siyaare ji yonent bi ñoom ñëpp dañ am yëg ci yow ak yéene ba tax na man jàpp naa ne daal loolu moo tax ak ñaan yan doon ñaan liste bi jàll ni mu war a jàlle waa résultat yi ni ma ko déggee mooy e, e, am na sama benn xarit bu nuy wax e, Pape Mor mbay Pape mbay moo ma jëkk a woo ni ma daal résultat yi génnagul mais sunu xel dal na eh, ma ne ko man xamal naa sama bopp ni lanu waxan président Macky Sall ci référendum yi ne ko département Thiès ñoo koy gañe mooy amaat ci un congé bi waa département bi ñi nga xam dañoo dem ci beneen liste bu ñu xaman seen bopp duñ pose candidat parce que am na nit ñoo xam ne nii bu président Macky Sall yëkkatee teraanga jox leen ñoom ñëpp seen i bokk dañ leen di sot loolu moo tax bi ma xisee nekk ci liste bi ak ñi nga xam ne sama nattugo yi ma ko àndal jàppan naa ne keneen kuy ber liste di pose candidat day sonal boppam mais nag résultat yi bi ma ko déggee eh, am naa ci nag mbetteel parce que li tax ma ci am mbetteel mooy man li ma doon ñaan ñu am 85 pour cent parce que lu day ni 600 personnes ñu wate ci département kees responsable bu day ni Idrissa Seck jàppale waa PDS yi ndax bu nu ko jàppalewul ci waxit mais jàpp leen ko ci suuf parce que ñun yëg leen li xew kon su fekkee moom dafa am 86 eh, Babacar Ba am 15 man ak ñi ma àndal ñu am 499 mais kooku résultat la boo xam ne nii résultat bu doy waar la waaye nag bettu ma parce que li tax bettu ma mooy jëflante nañ ko ci nit ñi te liggéey nañ ko avant bis bii ñëw parce que département Thiès li doon problème mooy bii maire day aw fële bee maire aw fële mais man laata maa dem douze maire yëpp benn lañu kenn rek moo ci nekkul woon APR muy Alassane Ndoye te maa taal sama oto dem ba këram ma fekk ko mu jëm dakaar am benn émission bu muy def ma woo ko mu wax ma ni jërul sax ngay delsi yow maire Talla Diagne liste boo nekk ca wate watee ak samay conseil te man yëgan naa ni am na benn association bu nekk foofa boo xam boole nañ ko ci liste bi mais taxul ñoom ñu sukkandikoo suye boo ma ne jandeer ak li ko wër lépp conseil yëpp man lan wateel ginnaaw jandeer ak li ko wër nag ñoo may wateel mais surtout arrondissement Thiénaba wala arrondissement Noto wala arrondissement Kër muso kon dañuy sant yàlla bu baax euh, di leen sant di sant responsable département mooy Augustin parce que mooy responsable département président Macky Sall dénk ko département bi mu ànd ak maire mais muy toléré bari nag parce que man xam naa ni man ni ma mel te fu nu tasee ma dal ci koom mais da koy toloore ree rek la cay teg ca suba sa la ma gën a téléphoné kon loolu moom itam bu fekkee ne sax aman na lenn lu mu def loo xam damaa naqari mais man su ma dee nit war naa ko ko jéggal ngir doxalinam kon ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mais di sant nag personnellement maire département kees douze maires yi nekk département kees awma seen pay parce que na ma leen ko waxan benu nu waxee ni ci lest bi lañu bokk laa wax ne man min ko jox département bi yëpp lañ ko jox maire yëpp lañ ko jox ñoom nag seen taxawaay boobu loolu lan defaat ban mat sëkk bon ñi nga xam ñoo nekk biir kees nekk ay responsable la leen war lépp def nañ ko surtout ministre Thierno Alassane Sall ak ñi mu ko àndal amul benn directeur bu nekk biir kees wala benn ministre wala benn responsable wala benn conseil municipal boo xam ne yaa ngi yëngu ci APR wala ci biir coalition bi te dem yëguma ni def nga sa liggéey kon loolu mbay li ma mën a wax daal mooy yëg-yëg boobu am naa ko moo tax résultat yi neex na lool mais bettu ma ndax xama naa nit noonu lay demee waaw. xam nga man avant premier tour laa génn PDS. man bokkuma ak gaa ñi nekkan ci PDS bi PDS di daanu man avant premier tour la génn PDS contre leen 26 bureaux ci commune Thiénaba ma ma gagné 24 bureaux kon génn naa PDS départ bi nuy dem deuxième tour yi maa ngi APR booba wax naa ko président Macky Sall bi ma téléphoné nee naa ko bi ñuy dem élection ñetti maire APR nga am muy man Augustin Tine ak Mamadou Thiaw Augustin ministre la Mamadou Thiaw directeur PNDL la man maa ci des. mënuma ma kon cër bi yaa ko moom yow laa koy jox kon mais Momar Ciss euh, mi ngi woon PDS mais ñëw gi nga xam ni moom lañu ñëw APR ak ñëwin wi ni mu rafete loolu lañ leen njukkale ba moom mi nga xam moo nekkan pedes ñu jox ko poste bi Fallou Fall mi ngi woon PDS mais avant élection yi ñëw na APR kon kon amul amul amul département bi amatul maire bu nekk PDS boo xam ne man xam naa ko ku dul Momar Ciss euh, ku dul euh, Alassane Ndoye te Alassane Ndoye poste député bi mu yor sax bu nu woote député assemblée fi meeri APR toog fi lay toog kon jàpp nañ ni turu PDS la mais jikko ji APR la kon loolu moo tax euh, élection yi daal la ci xew bettunu te it élection jàll mooy conduire élection 2017. yan poñ nga ko mën a jubbanti war ba xam nga Idrissa Seck politicien la Idrissa Seck bu dee laaj réew mi perte référendum yi pertaat un conseil yi pertaat député yi du dem élection 2019 loolu moo tax mu booy boycotté xam na day perte mais li mu def nii booy boycotté du lu ko gënal dafa amul pexe mais Idrissa Seck su yóbboo mu noppalu amul benn président boo xam ne nii li président Macky Sall am ci département kes benn président mas na koo am mosul am département Kees dañ daa wax bii maire ànd na ak président bii maire ànd na ak opposition bi Idrissa Seck li ko mayoon département mooy dafa ànd na ak maire yi ñoo ko doon jàppale ren ñàkk na maire yëpp maire yëpp ci ginnaaw président Macky Sall dama ne Idrissa Seck bu mu sonal boppam nanu bàyyi ak moom parce que président du moroom Idrissa sec dépassé na ko ñun ci suñu wàllu bopp ñun sax dépassé na Idrissa Seck dama ne Idrissa Seck bu fekkee ni am na lu mu bëgg élection yi nu jëm na nekk candidat député dañ koy gagné loolu sax amul amul sax ma dem te ñëw parce que fi mu ne yan système la ñuy def ba élection yi ñu gagné ko dee su ko wax fii parce que politique naxante la te naxante boobu te it wax ni eh, ku naagu da ngay daagu te ku daagu say morom raw la ñun du nu naagu du daagu te insa bi leen bëgg dina am. Ah, waaw samay mébét mooy li nga xam ne moom lay gànnaayoo mooy ñaan ñaan bi ma aman ak sama yéene ba tax may laaj commune bi ñaan boobu dafa gën a tar mais yéene bi it dafa gën a yéeg mooy jàpp naa ni commune Thiénaba am naa yéene defar ko te mën naa ko. te mooy sama yaakaar mooy sama yéene mooy sama gis-gis mooy sama bëgg-bëgg te insa rabbi yàlla dama ci fekk sama mébét yooyu mooy li ci ëpp mooy lu fi amul woon ma def ko fi e, bi ci ëpp mooy kenn ku ne xam ne commune Thiénaba amul fenn foo xam mën nga faa jàdd jaar ci benn bu doon route benn rang-rang sax mënoo koo am kooku moom insa rabbi day saafaraw kenn ku ne xam na ni bi may ñëw am nañ jafe-jafe ci village yi ñu am courant waaye euh, bi ma demee Makka avant may dem sax am naa résultat yi mais bi ma demee Makka laa gën a am résultat bu leer fii nu toll am naa fukki dëkk ak benn yoo xam insa bi ren den am courant loolu nag muy lu am solo bu dee ci wàllu ndox mi réglé naa ko laata maa dem sama commune Thiénaba 2017 bi su jàllee amul benn dëkk boo xam deeti nga am problème mu ndox laata maa dem réglé naa ko li koy defar bàyyi naa ko fi incha allah bi tey wala suba entrepreneur yi ñu ngi ci àll bi fépp fu la ndox da war a dem kooku dina fa dem yeneen yi ci des nag moom ay mébét la yoo xam ay xalaat la yoo xam ne nii yàlla moom moo koy indil boppam dangay ngay xalaat rek xëy xëy rek loola am parce que nag nangam dina am moom ab jaam du ko wax maa ngi bëgg nangam maa ngi ñaan moo tax. waaw sama kàdd gu mujj mooy di leen sant bu baax di santaat comme ni ma ko waxee di sant Serigne Thiénaba di sant njabootam di sant dëkkandoo yi di sant militants yi. mais di sant responsable yi comme ni ma ko waxee woon responsable politique yi nga xam ñoo nekk département Thiès du ma ne ab ministre du ma ne ab député du ma ne am maire du ma ne benn responsable képp ku dëkk département Thiès maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm te it bi nu am ci commune ba yéene boobu lan am ci département Thiès parce que fi ñu toll nag ndomb ak tànk gi nu président Macky Sall jox du pour commune ba rek département Thiès la te insaara bi taxawaay boobu dinañ ko taxaw lépp lu ci war dinañ ko def yéen itam maa ngi leen di sant bu baax eh, di leen gërëm di santaat sunu kilifa gi soog ak si léegi bàyyi eh, buubu sec wax naa démb ni leen dama eh, sama ngane gi ci jaayaan dama ci am mbetteel goo xam ni dama yéem ñu ne ma lan la may leen sama kilifa di sama sëriñ soxnaam dafa demal màkka yàlla dogal ñu bokk benn bis bu ñuy nganale mu jéggi fa soxnaam ànd ak njabootam dikk fekk si ma jaayaan doomam a ngi toog bi ni ñëw jaar ñoo ànd te sànq masoam dafa deman màkk kon cene ba cër bin ma jox diis na diis goo xam ni damay ñaan yàlla yàlla téeñal ma pour ma yeno ko fii nu tool tembe tembe dama wax ni cene ba ak commune cene ba dépassé naa nit déeti ma def lu ma naqari ma yëg ko parce que am na loo xam bu la ko nit xësee def wala mu defal la ko dépassé nga fooy amati aw naqar di sant bu baax nag comme ni ma ko waxee sëriñ Mamor Seck nii ci taxawaayam élection yii dafa dem ba tàggoog sago xam na ni néewuma fi te bëgg na ma am ndam mu boole ñaan ak taxawaay ak taxawu nit ñi mais am na ci loo xam ne nii sama ginnaaw lañ ko def keroog suuru élection ba muy lu ma bett lu ma neex muy responsable boo xam dama doon xëccook moom maire bi mu nekk conseil municipal muy Mbacke Diagne avant may dem dama woo mu ne ma damay dem mission euh, le 6 laa war na ñëw mais dama koy dagg. le deux dinaa ñëw pour mën a wate kere suuru wate bi bi mu dikkee fekkuma fi mais bi mu àggee euh, ci ci bureau bi pour war a wate li mu jëkk a def mooy yëkkati quarante mille francs jox ñi ma fi bàyyi ni leen maa leen ko dimbalee mais loolu mooy lu am solo euh, loo xam ne nii dañuy sant yàlla bu baax di santaat yàlla di santaat yàlla waaye di santaat yàlla waaye di santaat Serigne Thiénaba mi nga xam mooy suñu kilifa di sant ñi nga xam ñoo dëkk ci commune Thiénaba waaye di sant kilifa yi dëkk ci département Thiès parce que département kes dafa yaatu te kilifa diine gu ne am na fi te ñëpp ñoo ma jox cër ñëpp ñoo ma yëg ñëpp ñoo may ñaanal kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen journaliste yi ni ma ko waxee woon léegi lépp loo xam ni bëgg nañ ko ci Sénégal mais su doon woon yéen eh, problème dina am ndax kenn ku ne mënul dëkk bu nekk mu taxaw fa kër gu nekk mu taxaw fa rajo bu nekk mu dem wax fa mais yéen a koy déplacé fekk si ko ba ay message am mu yóbbu ko mais dañuy ñaanal yàlla bu baax président Macky Sall yàlla jàppale ko ba li mu yéene réew mi ay mébétam ak li mu yaakaar ci Sénégal yàlla jàppale ko ba mu am waaye maa ngi ñaan yàlla 2019 insaara bi suñ ci àggee premier tour ñu fal président Macky Sall mu jiite war réew mi ba foo ko yàlla yemale ñu xam ne fii la ko yemale yàlla yamale maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu